suñu borom. te yàlla ku ko fàtte rek. te yàlla ku ko fàtte rek. yërmande a tax. yërmande ma tax. ndax kum fàttali duutoo duutoo tal tal lu dul moom. di ko ñaan yërmandeem ak um njëggalam. di ko ñaan yërmandeem ak um njëggalam. di ko ñaan xéwal yu daj ñun jaam ñëpp. di ko jaamu yàlla. akuk jaamu yàlla. yàlla na yàlla xéewal. yàlla na yàlla xéewal. yàlla na dimbale. yàlla na jëriñ. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ci barke xasida ak sëñ Touba ji may jàng. ci barke xasida ak sëñ Touba ji may jàng. rabbi bi maa yasarul azaan qad fajaa jaahi afdali man lillahi qad lajaa di rabbin karimi laa sarika lahu sadri yawman nuran saati an malaa محمد صلوات الله أبدا عليه بيشبه كل به قرأ أدعو إله الذي أمت مواهبه بجملة الخلق ويختار من برأ أشهده جل أعظاما وكرما يتكرم هادئ وكل من لغا بريئا الرحمن هب لجميع الخلق رحمة من يثني عن الشر من قرآنه قرأ خط أمة المثرى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خير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 كتاب به مسكت مستغنيا به غريبا وانساني المصيبات والكأبات